bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqillah sayyidil awwalina wal axirina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man wallahum bi ihsaanin ila yawm alqiyaama gannaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ziara di nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaye tey nag ñu ñëwaat ci tafsir yi nga xamante ni ñu ngi leen koy amalal ci seen bi waaye ngir ngeen mën koo topp dangeen di daal di jokk ci seen bi nga xamante ni mooy fmtv bu ko defee lépp lu ñu fa tàbbal incha allah dinañ ko mën a topp tey nag ñëwaat indi laa leen beneen saar bu am am solo ñu ko wax suuratul fajiri nee nañ mi borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ko wàccul màkkatal mukarama moo tax ñu ne màkkiyatun la woon waaye borom bi subhaanahu wa taala giñ ci ay mbir yu ama am solo danañ ci indi ay leeral waaye tamit jàngale ci ña nga xam buur ya nga xamante ni dañoo amoon ay doole lool nan la leen borom bi alage nga xamante ni naagu wuñ nañ lool yàlla yebaloon fa ay yonante ñu weddi yonante yooyu jàpp ni seen doole yooyu mën na leen jariñ dara suñu borom alag leen ak seeni xeet waaye yàlla tudd ci euh, nee nañ Hamza mi nga xamante ni bàyyi tax la ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu rayoon ko ci xaswatu uxud daal di xar dënn ba daal di génn xol ba di ko lekk di ñaawal yonante bi sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi mu amoon loolu leen metti ndax moom lañ duppe woon asadullah gaynde borom bi subhanahu wa taala waaye yàlla indi ci aaya boo xamante ni nee nañ moom lay bégal moom borom bi subhanahu wa taala ndax Hamza ku jàmbaare woon lool la ci lislaam waaye daan xeexal lislaam lool nekkoon ci jàmbaar lool nag bande bisimillahi rahmaani rahim borom bi subhanahu wa taala ci fajar ni wal fajri def waawul xasam giñ naa ci fajar am na ñu ko firee ni ci gàttal gaal mbooleem fajar borom bi giiñ na ci waaye borom bi nga xamante ni moom moo giñ ci fajar kon fajar nekk na heure jaamu yàlla bu ama am solo ndax lan moo tax borom bi giñ ci nga gis heure fajar nga xamante ni ci lay nelaw di gën a jàppandal nga daal di dagg sa nelaw daal di koy jox borom bi subhaanahu wa taala loolee kat xamoo yiw ci nekk ak tiyaaba yi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa waxoon ne ni rakaat al fajri xayrun min ad dunya fajar gaal moo gën àdduna ak li si biiram kon lu am am solo la suñu boroom daal di giñaa wala yàlla ni asri giñ naa ci fukki fan yi guddi ya suñu borom subhanahu wa taala nee nañ fukki fan yàlla la jublu mooy fukki fan yi mujj ci weeru koor ndax yonente bi sallallahu alayhi wa nee na ku ko woorkat borom bi goreel na la sa safara ñii ni déedéet fukki fanu tam la boroom bi giiñ ne wala yàlla yi asri ñii ni déedéet fukki fanu tabaski moom la boroom bi daal di giiñ fukki fan tabaski lañu wax ni moom la borom bi daal di giñ waaye ala kulli xaalin wallaahu aalam suñu borom ni wax saf yi giñ naa ci lu peer lu peeru maanaam lépp la nga xamante ni borom bi bind na ko peer la góor ak jigéen asamaan ak suuf bëccëg ak guddi nee nañ loolee ta nga xamante ni borom bi def na ko muy ay peer borom bi subhaanahu wa taala moom la jublu wala watri ak lu tóol walay lii borom bi ne giñ naa ci guddi isa yasri ak maanaam buy gën dem di dugg ci biir hal fii zalika hal ndax fii zalika ci loolu loolu te yàlla giñ xasamun giñ la boo ba nga xamante ni dañ ko war a gëm waaw giñ bu dëgg la kay giñ bu ñu war a gëm la waaye ndax ñen koy gëm suñu borom lii di xijjirin ña nga xamante ne ñoom ñooy xel ya ñoom ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko gëm waaye ñi nga xamante ni ñu gàtt xel la te ñoo yéefari ñoom duñ ko gëm suñu borom subhanahu wax alam ndax xam nga ndax teg nga sa bët yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kayfa faala naka la def rabbuka sa borom bi aad buur boobu nga xamante ni moom mooy aad te yàlla yónni woon fa yonente yàlla huud alayhi salaam mu koy woo ci kennal borom bi subhanahu wa taala mu lànk suñu borom téye beeg euh, taw ba ay ati bekkoor bu metti borom bi daal di ko fay wàcce ñu toog ay at di ñaan borom bi borom bi wuy leen ngir seen bokkaale yu métti yooyu yonente yàlla huud bu mësaan a ñëw ne jaam leen yàlla kennal leen ko borom bi teggi leen balaa bi nga xamante ni teg na leen ko ñu koy ñaawal waaye borom bi benn bés waa dëkk ba génn di ñaan rekk borom bi yabal ñetti xiin xiin bu xonq ak bu weex ak bu xonk xiin bu xonq ak bu weex ak bu ñuul ni leen ñu dégg benn kàddu bu leen tànn leen ci ñetti xiin yooyu benn xiin ñu kontaan loolu nag ni kon xiin bu ñuul lañuy tànn ndax moom moo gën a nuru xiinu taw kontaan ni borom bi wuy si nañu fekk borom bi da leen di mbugal bés boobu lay tukki seen àdduna borom bi envoyé leen benn ngelaw bu méttee métti ba nga xamante ni dafa ànd ak seddaay bu jéggi dayo suñu borom subhanahu wa taala tàggat nañ ko juróom-ñetti guddi te mooy juróom-ñaari fan mooy une semaine bi mu weesoo suñu borom nee na ñoom ñëpp a faatu te faatu ba nga xamante ne dañoo dee faatu ba congelé dee ba congelé ba mel ni tàndarma ba wow ba nga xamante ni buñ ko jëlee daal di koy toj rek day daal day daal di tas suñu borom ne noonu lañ faatu mu ngi koy wax ci wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin ate saqara alay sab'a layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuuman fa tara alqawma fiha sar'a ka annahum ajaazin naqlin xaawiya kon noone noone la bi subhanahu wa taala daal di faate suñu borom nettali ci irama zaati ak irama zaati imaadi mi nga xamante ni moom mooy berab borom keno ya kenom yooyu mooy pale ba nga xamante ni moom la doon tabax dañu gën koo xam ci shadaat buñ waxee shadaat nag nee nañ aad moom moo nekkoon waajuram mu ni woon àjjana bi ma dégg ni borom bi da koo décoré ay or am na ay sewnde ma ni danaa defar àjjana bu ni mel ba loolee taxoon mu naagu woon nag ak wóolu dooleem ba tax ni day defar àjjana ci kaw suuf daal di yónnee ci buur yi nga xamante ni eh, ñoo nekkoon ci àdduna bi ngir sàkku ndimbal ay or ci ñoom buur yooyu daal di koy yónnee di ko yónnee ay or mu koy dagale ba am li nga xamante ni bëgg na ko ci lim mu ni léegi nag jot na ngir ma daal di defar àjjana bi nga xamante ni bëgg naa ko mbokk yi nee nañ mu woo junni ministre yi nga xamante ne moo leen yilifoon kenn ku ne mu leen benn pale laay tabax waaye pale bi day am junni pale ci biir pale kenn ku ne mu jox la liggéey nee na liggéey bi mu la bi mu la jox kenn ku ne amaan nga junni emploi ya nga xamante ni ñoom ñoo lay liggéeyal sa liggéey kon pale boobu nan la tolloon nan la mel waaye mu décoré ko lépp ay or ni day defar àjjana ci kaw suuf nee nañ liggéey ba diire woon na ñetti téeméeri at waaye li gënoon a yéeme mason ya daan liggéey tey maçon yi liggéey ci suba du bokk ak mason yi yi gont nga xam junni maçon ñooy ñooy xëy suba junni ñooy ñoo ñoom ñooy gontaat ngoon te duñu bokk ñu koy liggéey durant euh, trois ans maam du durant trois cents ans ma ñetti téeméeri at ñuy liggéey lu nu mel kon pale boobu nan la meloon waaye mbokk yi bi nga xamante ne Sadat dem na namm na day dem inaugurer pale boobu nga xamante ni tabaxoon na ko te mu duppee koon àjjana bi mu ko décoré ay or lépp ba mu daj mun nag da koy yàlla yabal jibril alayhi salaam bi ñuy dem ba ci yoon bi bay waaj yëg rek jibril da na a yuuxu xaacu ñoom ñëpp ñu daal di faatu moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa in kaanat ilaa sayxatan waahidatan fa iza hum xaamidun sunu borom nee na bu ma neexoon ma yabal benn malaaka bu xaacoo yuuxu benn yuuxu yéen ñëppay daal di faatu maanaam doo leen dundati kon suñu borom noonee la ko faat moom mi nga xamante ni moom mooy sadar sunu borom wax ni allati mooy ka nga xamante ni lam du duñu bindaat misuhoo lu ni mel fil bilaad ci dëkk ba duñu bindaat dëkk bu mel noonu wa samuuda ak samuud allazi ba nga xamante ni jaabu yett na a saxra montan wa bil waadi ca xurwa wa na ak firawna zil awtaadi boroom daj wa mu nga xamante ni danaan jàpp ay nit daan leen daaj boroom daaj ba nga xamante ni danaan jàpp ay nit kum jàppaan ñu daaj say tànk ak say loxo waaye am na ñu ko firee zil awtaat borom armée bu bëri ba allazina ñooñee ñoo ñaa nga xamante ne taxaw ba woon nañ fii bilaadi ca dëkk ba fa aksaru lu bëri woon ci ñoom fii a fasaad dañ daan yàq suuf sa fa sabba caw na leen alayhim seen alayhim ñoom rabbuka sa borom sawta azabi yarug mbugal fa sabba mbugal na leen alayhim ñoom rabbuka sa borom sawta azab mbugal bu méttee métt am nañu ko firee noonu inna rabbaka naka sa boroom labil mirsaadi mooy ki nga xamante ni danga dagale mbooleem jëf boo xamante ni nit jëf na ko moo xam lu baax ak lu baaxul waaye jëf yépp ci moom la ñuy teere ëllëg yomal xiyaam suñu boroom fa amal insaanu waaye naka yéefar bi ida mabtalaahu bu ko yàlla nat bu ko nattoo rabbuhu boroomam fa akramahu mu teral ko wa naxamu wërsëgal ko fa yaqul dana wax rabbi sama borom akrama teral na ma di ko namoo <clears throat> bu ko yàlla nattoo fa qadara mu xatal alayhi ci moom rizqu wërsëgam fa yaqul dana wax rabbi sama borom ahanan daf ma doyal daf ma doyadal nga gis yéefar bi ni mu gàttee xel nee na borom bi ne bu ko yàlla wërsëgalee wërsëg bu yaatu day na moo yàlla ma wërsëgal moo ma defal lii lii maa moom lii sama benn waaye bu ko yàlla nattoo nattu tuuti rek mu daal di xaddi foofu la wuteeg jullit bi jullit bi moom day daal di gëm yàlla xam ni yàlla moom mooy joxe moom mooy maye moom mooy nangu waaye kàlla déedéet kay bal li fi nekk kay laa tukrimuuna doo leen teddal yatiima jirim wala taxaaduna te doo leen ñaaxe ala taabi miskina ci leel miskin mooy ku ñàkk mooy ñu ñàkk ñi wa taakuluuna ngeen di lekk aturaasa alalu jirim walla alalu koo xamante ni alalu jigéen jigéen la wala alalu ñi nga xamante ni dañoo néew doole ñoom lañ tuddee aturaasa ak lan lekk ba nga xamante ni lamman bu tar la wa tuxibuuna ngeen bëgg almaala alal xubban bëgg ma nga xamante ni jamman bëri na lool kàllaa dëgg-dëgg isa dukkati bu yëngatoo isa dukkati bu ko sunu borom déggatee al ardu suuf sa dakkan déggateem boobu wala yëngatoom boobu wa jaa dikk mu ko sa borom wala malaku ak malayka safan safan def ay sàppe wa ji a dikkee na yow ma isin bës boobu bi jahannama kan moo dikk bu jahannama mooy yéefar bi moo tax wa ji a dikkeef na yow ma isin bés bi jahannama ci safara bi naa jahannama te yéefar bi la ci borom bi jublu yow ma isin bés ba nga xamante ni yatazakkaru dana waaru al insaanu yéefar bi wa anna lahu zikra wa anna ana lan ko zikra moom lay jaamu bés bu du bésu jaamu ana lan lay jaamu moom yéefar bi yaquulu dana wax yaa layte ak moo neexoon xaddamtu ñu jiital ma li xayaati sama dund fa yow ma isin bés boobu laa yuazibu dee suñu mbugal azabahu mbugal ahadun kenn bu mel noonu bés boobu danañ ko mbugal mbugal ba nga xamante ni mës ñu ko koo mbugal mbugal fenn wala yuusixu wala yuusax wala yuusixu duñ ko takk wa saaxuhu takk ba nga xamante ni axadul mës ñu ko takk kenn yaa ayatuha yaa ayatuha nafsu yow mi nga xamante ni yow yaa tedd yaay bakkan bi tedd topp yàlla topp yonenteem te nee nañ xamza la ci borom bi subhanahu wa taala jublu yaa ayatuha nafsu yow bakkan bi nga xamante ni al mutmainna bakkan bu sax nga bu dal bu teey irjixi dellul ilaa rabbika sa borom muy bés bañ ko reyee yàlla ni ko nag kaay dellu si sa borom raadiyatan ndax aji gërëm muun nga la nga xamante ne yàlla wàcc woon na ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga daal di koy waaye tey nag tey yow la ñuy gërëm nan lañ lay gërëmee mooy faddu xuli na nga dugg fii abadi sama fii abadi si sama jaam yi nga xamante ni ñoom ñooy dem àjjana waddu xuli te nga dugg yow mi nga xamante ni yaay xamza jannati àjjana am nañu ni xamza la ci borom bi subhanahu wa taala jublu suñu borom nee na ko la nga daan def lépp ba suñu borom gërëmale ko nga daan xeexal yàlla daan jàppale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu faat la ji waa léegi ñëwal nag ñëwal ci sa borom subhanahu wa nga ñëw xool xéewal yi nga xamante ni borom bi moom la defal ñëwal mu boole la ak jaam ñi nga xamante ni ñooñu ñu daan sellal ci àdduna daan topp ay ndigalam te ñooñu fan lañu jëme na lañu jëme kon kaay bokk ci yow mi nga xamante ni yaa xeexal borom bi subhanahu wa taala ba génn àdduna nee nañ Hamza la ci borom bi subhanahu wa taala jublu mbokk yi kon saar baa ngi noonu lépp lu si jub ñu xam ne suñu matali la ak suñu ñàkk fasaxa waaye lépp lu si eh, lépp lu ci xam ne suñu matali la ñàkk fasaxa waaye lépp lu ci jub ñu ngi koy sante borom bi subhanahu wa taala subhanaka laa ilma lana illa ma alamtana innaka anta alimul hakim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu